kaaba gi nag euh, cosaan li bi nga xamee ne sunu borom bi tabaraka wa taala wax na malaayka ne leen L'origine de la Kaaba date de longtemps. C'est lorsque Dieu avait dit aux anges qu'il allait envoyer des êtres humains sur terre pour les représenter. Et là, il y avait quelques anges qui avaient contesté en disant à Dieu comment est-ce qu'il pouvait envoyer des humains sur terre alors que ce sont de grands pécheurs. Mais en se conscientisant, ces anges voulaient se repentir et c'est là qu'ils se sont rendus à la Kaaba, se trouvant dans le ciel, au paradis, pour tourner autour de cette Kaaba afin d'obtenir le pardon du Seigneur. C'est là que Dieu leur demanda d'en construire une autre sur terre pour les humains. Mais euh, celle-ci a été détruite lors de la grande pluie au temps du prophète Nuh qui l'avait ravagée. Maintenant, Dieu demanda à Ibrahim et son fils d'en reconstruire C'est avec l'arrivée du prophète que l'acte des anges a été repris par les musulmans, chaque pèlerinage en vue d'effacer les péchés et de se repentir devant le Seigneur. aj makka googu nag bokk ci wër kaaba ga ci ponk ya kon loolu mooy cosaanul kaaba gi képp kuy wër kaaba gi tam di ko wëree ak toroxlu ak jaamu yàlla ak teewul tam xam ne som boobu naa la ubbil buntu yërmande buntu njëgale buntu